santaat yàlla bu baax di julli ci yenentam bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi euh, di pare rek ci tontu say laaj di kontaan ci ginnaaw bi nga ñu dalalee. jërëjëf ah, alors mi ngi noonu duñ defee du dugg waxtaan dugg ci waxtaan bi père gis nañ euh, combat Siteu amoon na ay problème mais euh, finalement dañ leen a convoqué woon est mën na ñoo xam bi ñu leen convoqué exactement lan ngeen jëlee foofu. non dañu ànd dañu auditionné man Siteu Cheikh Niang Djili muy tambour major bi moom bi ñu auditionné woowaat ñu le vendredi génne PV bi liñ ci def nag da ci bëri point yi ñu d'accordul euh, pendre nañ Djili 15 ans bon Siteu ñetti combat yoo xamante ne nii du tuus wala tambour major am du ko tuusal euh, reprendre combat bi le 29 janvier suspendre dagg xaalisam cinq cent 500000 yooyu yëpp ànduñu ci. mais alors comme ni nga ko déggee ni nu ko waxee mais ñu ne euh, Tambour Major dañ ko aj quinze ans. Mhm. loolu naka nga ko gisee. ah non 15 ans moom aj nañ ko ko moom mi ngi toog moom yaakaaru làmb te it nag ak luñ ko aj saa wu amee combat lu mu ko daan jox dina ko ko jox loolu moom dérangé wuñu ah, waaw bëri non yooyu ay waxu yàqu la loolu moom jër duma ci sax commentaire problème ah. mooy Siteu moomul boppam daa am lu mm-hmm. moom am lu nitam moom am lu am kilifaam moom kon yooyu duma ci wax mm-hmm. euh, d'accord bu ñu jigee foofu day waxtaan rek euh, euh, comme combat bi dañ ko bëgg a tëggaat le cinq janvier est-ce que yéen pare ngeen da ngeen di laaj da waala waaw le 29 janvier da ngeen di laaj ba xam bu ñu jox leen avance ngeen bëre wala day ñëw rek waxtaan da ngeen combat ba jeex na remplir nañ suñu contrat ñeenti décision ma am victoire défaite mm-hmm. Euh, match nul sans verdict kon décision jóg na remplir nañ suñu contrat. comme man su la déggee boo boo bëgg a tëggaatee euh, combat bi il faut que ñu jox la avance ngeen préparé. ñu ñu xaatimaat beneen contrat ñu waxaale ñu fayaat mais suñu diggante contra mhm. jeex na le 25 décembre. pare le 5 décembre bi ñu génn. Mhm. pare nañ ci contrat boobu. di topp nag suñu àq muy suñu suñu ñu fay ñu ko. kon ba léegi jotagoo leen seen reliquat. jotaguñ ci te gisuñ benn texte bu bu tëral loolu ànduñu ci. mais pourquoi jotoo leen seen reliquat. ah non ko joxagul d' ailleurs demee sax woowaat nañ ñu. Ah, a ko 11h demee. Mhm. mais bi yoon ma bi la. Mhm. pour ñu waxtaan. Mhm. Euh, mais bu dee waxtaan pour promoteur bi joxaat ñu xaalis. rek yëkkati dara jox ñu. pour ñu bërewaat loolu duñ ko naw. te dëkk bi dëkku yoon la xalaatuñ ko sax. Euh, alors gis nañ tamit aussi ne euh, amateurs yi ñoom ñi ngi naan combat boobu dañ ko tëggaat. Euh, te te bu ñu koy tëggaat yaa xam naa mbër yi jaru leen sax ñu leen fay lu bari parce que promoteur bi jot na li muy jot ba pare te tey lan ngay wax ñooñu ak tamit tey jii ah gars yi seetaan dañuy wax loolu neen neen promoteur bi dafa diw stade bu mu fees dell comme comme bu ñu koy tëggaat non kon da ngaa yoon dañ ne promoteur bi bu koy tëggaat xanaa amateur yi duñu fay waa duñ fay lañu wax. waa mais tamit. Euh, parce que loolu day loolu day dëggal li pro li CNG bëgg a defaat ne ñun duñ ko nangu. tey bu ñu doon tëgg euh, combat bi yéen ban budget ngeen di laaj. non wax loolu du ma la ko wax li ma la mën a wax rek mooy. après ah, mu munoo wax tey instant bi ñu ma joxee temps tey jii dinañ bëree wax non ma la ko wax la mën a wax mooy. Mm-hmm. contrat bi jeex na kuñ dëggaat combat bi da ngay ñëw ñu ñu waxtaan ba jiboo mm-hmm. doo ko signé. promoteur bi benn faveur lañ ko lañ la ñuy nangu ginnaaw ba combat bi. gis na ni mel. ñu bëree koy soxla. Mhm. bala ñu wax ak keneen ñu wax ak moom mi nga xamante ne nii moo ko organisé woon. Mhm. organisé woon laa lay wax de wax wala moo ko organisé moo ko mhm. organisé woon. combat bi jeex na. am na faveur nag bu ko bëggaatee moom ko jox keneen. mais dañuy waxtaanaan. alors euh, d' accord comme mel nañ euh, kii euh, moo nekk euh, képp ki nga xam ne da ngay takk ngeem mooy si président tey père ban taxawaay nga yaakaar ni moom la Gris war a mën a taxaw. non Gris mi ngi ci contacté na ma te wóor na a ne contacté na Paa Papa Sow. dañu bëgg lii arrêté. d' accord c' est fois moo am te benn rek lañ ci respecté. bu li mel lu mel nii am. nees Balla Beye 2. Lagros Garga Mbossé. Mhm. ñàkk jariñu ak ak ak ak ak ak Alioune Seye 2. Mhm. tey si te Papa Sow. Mhm. benn rek lañ ci respecte mooy bi amoon yoo paala beng tëgg ko. boobu moom vingt mbër kenn bërewu ci fay nañ ñëpp. bi fa histoire amee làmb ji yàqu. boobu rek lañ ci respecté. kon nañu respecté mm-hmm. mbër yi di respect respecté contrat yu ñu xaatim mm-hmm. kon lii dafa war a arrêté Mhm. promoteur mënu encaissé ay biem sponsor yi fay ko mbër mi perte mhm. loolu xel nangu ko d' accord mi ngi noonu nee na ah, lii nii xel nangu ko tamit duñ def rek lu dugg ci affiche bu mag bi nga xamante ni moo war a am dimaas ah, ci diggante ah, Boy Niang ak Tapha Tine père naka nga gisee combat boobu ñoom ñaa seen préparation def nañ cinq face to face benn sotti ci yëpp a mhm. avorté wul pour dañoo respecté wul contrat da di lu mag def dee bu dekkee bàyyi ko Ama Baldé day bëre ak Tafa ak. Modou uh-huh. bi ñuy bëre seen combat ba tournoi TNT ba. Uh-huh. waa kër Ama yi fekk Tapha Tine ci uh-huh. otoom parc an la woon. génn fa jaasi gaaññee nañu xëpp ko gàllaaj te face la woon. ñuy bëreeg booy ñaa booy ñaa dëkk Pikine di frère Ama Baldé. moo tax face à face yi booy gisee dañuy encadré Tapha duñ nangu benn waa Pikine di leen jege. Mhm. d'ailleurs moo waral histoire ci am yëpp. Mhm. dem nañ cinq face to face mais benn amu ci ñaari mbër taxaw wax. Mhm. loolu nag day wane importance su combat bi. Euh, dimanche bi di ñëw la ci arène nationale le 19 décembre. mais combat la boo xamante ni di yomb. combat bu neex lay doon. waaw mais mais père yow ah, ci ñoom ñaar buñ taxawee Tapha Tine bu taxawee war a xeex ak Boy Niang lan mooy avantage am ci wàllu xeex. Tafatin bu demee ñoom ñaar a mën a xeex xeex bi du ma ko farale Tafatin du ma ko farale Boy Niang mhm. bëre bi mhm. mën naa xeex mhm. Boy Niang mën naa ah, ah, lan nga yaakaar ni moo war a nekk ah, fooru Boy Niang ci kaw Tafatin rapidité gaawaay rek lam bëreeg la dëgër bëgg mu Hmm. bu ko defee mën na am lu ko naqari lool. Hmm. aussi tamit est-ce que mën xam tamit ah, Tapha Tine comme ni ma la ko laajee ci Boy Niang la mooy ah, forum tey ci combat boobu noonu. mu jàppee Tapha mu bañ a xeeb Boy Niang respecté ko te bañ koo may dara. ndax kaawaayam hmm. kum ci mënta daan amul. Boy Niang waaw. combat bi dina yàgg père. bu yàggee duma ko bëgg ci côté Boy Niang su ma doon Boy Niang du ma nangu combat bi yàgg. bu yàggee avantage bu booy kii la Tapha Tine. waaw parce que suma sañoon daal du ko bëre ndax booy ña euh, loolu daal bëgguma ko suma sañoon du ma nangu loolu. Mhm. moom bu moom pour ay avantage am. Mhm. bu mu nangu combat bi yàgg. Mhm. léegi ñoom ñaar ku ci encaissé coup moroomam. non ñaari xeexkat lañu. parce que Tapha gis nga ni mu def Elton. gis nga ni mu def Bombardier. waaye nag booy ñaa boxeur la. ndax bi muy doon xale da daan box ci Ibamar. ci nga diggam ak guy gi ci mm-hmm. nga diggam ak Sa Thiès mën nga ko ëpploo sànni mais li cëpp kurpeñam ëpp lu muy dal mm-hmm. ndax daa mën a xeex te lay xool ñoom ñaar ñëpp gis nañ seen combat bërëb bi it mm-hmm. buñ ko farale booy ñaar tabaatin combat yooyu rek la xeex mais ku gis ni mu def ceek def ko Yékini Junior def ko Abdou Diouf da ngay xam ne bërëkët la boo ñaaw mën naa bëre mën naa xeex Tapha Tine mën naa bëre mën naa xeex kon faveur faveur ku ci ne mhm. buñ ne booy ñaa dàq ba mhm. bu mu mhm. bu na dàq xeex bu mu sóor loolu ñoom ñaar mën nañoo xeex mën nañoo bëre ku jum daanu euh, alors comme ni nga ko waxee ñu gis ne euh, tafaatin jël bu rëy la daanoon Yékini junior mbot mu rëy ñu gis tamit euh, Sa Thiès tamit booy ñaar daanoon ko te ñoom ñaar bis bu ñu songantee ba jàppante foofu lan yow lan nga yaakaar ni moom moo war mën am pour sib a gaaw ci ñoom mën nañoo bëre mën nañoo xeex ku jum daanu bu ñu jàppantee lii fi am duma ci commentaire xam naa daal bu ci kenn may sa morom dara. Hmm. ku ci may sa moroom dara. Hmm. mën nga am loola naqari. Hmm. combat a boo xam ne bu dul yomb. yomb alors ñoom ñaar ñëpp dañoo fonk combat bi ndax xam nañ ku ci daanu. la lan la lay te gis naa. seen open press yi dafa atin dafa open press. def ko samedi jeudi bi ñu génn. mais même biñ ko ne nañ ko reporté def ko fin semaine dafa bañ. d'accord ne moom jël ay décision lu yéene stade bi. da koy def booy ñaa di waajal mardi. waaw ba pare naka nga gisee. waaw ah, mbër war a bëree dimanche. mardi mu bëgg a def open press. non loolu dara. Hmm. entraînement yu métti rek lañ lay tere mais open press dara waaw ah. say fans la. ñoom pour leen rendez-vous ci mobilisation bi. Mhm. woowaale appel ñi lay jàppale. d'accord mbër dana entraîné sax. ci dernière semaine de combat te moo gën a métti open press. Mhm. dañuy bàkku rek. wane seen bopp woo ñi lay jàppale loolu garaawul. Mhm. Ah, euh, alors mi ngi noonu père nee na ah, loolu garaawul mais tamit père bu nañoo ah, da am fu ñu waxtaanee parce que gis nañ li li li xewoon ci Siteu ak Papa Sow bu mag bi taxaw ku nekk tamit euh, ku nekk sa xel mi ngi yaakaar ne est-ce que lu amoon bee passé mënul amaat dañu laaj tey jii ban taxawaay la ñu war a mën a def ak tamit CNG ban taxawaay la mën a am ba sauver làmb ji parce que làmb ji moom la àdduna di waaw li may wax rek mooy euh, ñu jël ay matukaay ndax ci naan sax Tambour Major ñu ngi koy wàññi léegi effectif bi ñu la doon may. Mm-hmm. Euh, ndax làmb ji paase ñu bëri dañ ne CNG dañoo juum ndax géwël yi Papa Sow. dafa mm-hmm. doon jege ci fi Papa sumeeku. géwël yi Siteu su nekk ah, ñoom d'accord nañ dañoo juumoon quoi waa waaw ah, mais non loolu la nit ñi wax lañu nit ñi wax man nag li xam naa ko jarul ma koy hmm. hmm. ko wax rek ma maam bu ëllëgee a dañ jël seen matuwaay boobu rek laa <laughs> bi nga door yaakaar naa lañu amoon ci ay minutes a ah, <laughs> jeex na tamit di amoon mbégte ak contentement te di mooy di dalal suñu per par Mass Mbargane duñ defee lu jox ko mu tàggatoo ak mbokk internet yi koy seetaan waa di euh, kontaan ci xam nga nag hmm. yéen moom duma leen bañal dara ndax c'est la famille. dëgg la ndax fàllu mii. Mm-hmm. li cëpp moom laay àndal ci terrain bi. ndeysaan. te mm-hmm. tey bu ma ñëwee moom laay àndal kon fa njaboot gi benn la. Mm-hmm. kon yéen du ma leen bañal dara. dëgg nañu toog rek waxtaane làmb. dëgg la Sénégal jëm kanam. <laughs>